Info, l'information sur mesure. Euh, forum euh, violence électorale le conseil départemental de la jeunesse ONG Alphadev ak développement département de Kermassar, nous avons violence électorale violence violence pré-électorale violence électorale violence post waaye yooyu yëpp daal di jëm si wàllum élection maanaam violence yi nga xam ne moo ngi moo ngi moo ngi am rapport ak élection yi nga xam ne moom lañ jëm ah, tey nag ñu daal di jéem a xalaat de manière générale lan mooy indi violence yooyu si élection yi si waajal élection yi ak bu élection yi weesoo tamit lan moo mën a indi violence yi ñu identifier cause yi daal di xool nan lañ mën a def ba daal di si indi ay solution su ko defee kenn bañ si loru waaw violence dafa bëri façon am na violence yu ñuy wax violence verbale am na violence yu ñuy wax violence physique am na violence psychologique euh, yooyu yëpp muy muy muy mu ñu am ay conséquences yu nefas néfaste ci population bi waaye yooyu yëpp jéem nañoo xool nan la mën a def nan lañ mën a def ba éviter ko nan lañ mën a def ba sensibiliser population bi ñu éviter yi ko mën a indi su ko defee kenn bañ si loru taxawaay gi lenn dong la maanaam acteurs yi force vive département Kër Massar ñëpp daal di booloo daal di déggoo su ko defee bis bu ñu demee ba si jongante ya si euh, campagne électorale beeg li ko wër euh, ñun ñëpp ñu daal di mën a déggoo daal di mën a dox pour jàmm kër Massar su ko defee ñëpp nekk si jàmm. waaw li ko li sabab forum bi mooy que ni dañoo sellu ni fii ak ñetti at ci euh, am na ñetti at léegi boobaag léegi depuis 2021 ni heure bu ñuy wax ay affaire élection wala demee noonu rek dina am ay violence maanaam ay gaañante et Kër Massar da ciy loolu mën nañ ne en 2021 jëye ji fi amoon ba ci Auchan ba am xale bu ci ñàkk bakkanam ba yëmbal am xale buñ ci boom ak yeneen ak yeneen yoo xam ne mën suñ koy lim dañ fi dañ ci dañ ci fi la fanaan wante tamit yeneen yàq yi nga xam dañ koy def ci liggéey bi ci koom-koom bi ak yëpp ñun ñu ne loolu nag fa fagaru moo gën faju loolu moo waral ñu ne nañu ànd ñëpp ñu woo ñëpp képp koo xam ne da nga nekk doomu kër masaar ñu woo la ñu toog pour la ñu waxtaanee jàmm pour que ëllëg euh, lépp su election yi di amit ñu def ko ci jàmm ku yàlla may ndam yàlla may la ndam ñeneen ñi xam ni loolu mooy àdduna ñii dañuy gagné ñii duñ gagné donc loolu loolu moo li nga xam ne moo waraloon tey jii ñu ne woon nañ toog waxtaan ci euh, lépp loo xam day nekk ci violence électorale alhamdulilah ku duggoon ci salle bi rek gis euh, ni salle feesee woon ak euh, kilifa yi fi teewoon nga xamni ñëpp du ne ñëpp wante ñi ëpp ci euh, Kër Massar wuyu euh, préfet moko jité le conseil départemental mu ngi fi woon wante maire Jaxaay mu ngi fi woon ONG Alpha gox yi le conseil départemental des aînés Croix-Rouge la plateforme des acteurs communautaires la fédération des élèves et étudiants

Euh, yore fi dara rek yore si am ndomba jëm nañ la invité pour ñu ñëw toog ñu waxtaan ko ndaxte mbiru ñëpp kenn du ko paccoo bañ koy pencoo. njëlbeen la waxtaan bi njëlbeen la dañ ne suñ ci génnee li ñuy def dinañ dem fekk si dañ ñëw fekk si leen yéen ñi nga xam ne yéen ay taskatu xibaar yi si si seen bërëb yi ñu toog ñu gën a waxtaanee li nga xam ne nan la ñu war a def pour am jàmm ci Kër Massar suñ ci jógee tamit dinañ def li nga xam ni mooy caravane maanaam dinañ lañ wër jël suñu oto wër département bi fépp fu nekk ñu taxaw fa pour wax nit ñi ni jàmm moo gën ay duñ ci yem dañ comme que conseil ñun conseil départemental la am na conseil communal yi dañ fexe ba conseil communal de jeunesse yi ku ci nekk tamit ñu euh, gunge la ba nga ko organiser ci communes yi maanaam ñu def ko ci six commune yi ku ci nekk ñu woote fa jàmm su ñëpp di woote jàmm kenn dootul nekk ci ay loolu daal mooy li nga xam ne mooy moo ñuy yitteel 24 infos, l'information sur mesure.